li gën a fës ci biir euh, internet bi dañu koy dooree rek mbir mi nga xamante ni rek euh, ëttu yëglekaay yëpp xëy euh, bindandoo ko mu di nag barka ba mi nga xamante ne ni rek nekkoon na ca diwaanu TFM mu daal di xëy rek bind ci page Facebook am di xamal ne rek dafay quitté rek groupe boobule ne rek jot na ngir mu amal rek ay projet personnel am ginnaaw rek ba mu liggéeyee ak ñoom lu tolloog fukki at moom nag nee jot na ngir mu daal di dem rek développé jiwaat yeneen projet muy wane na ne kii di uh, Youssouma Jigéen Ndour amuñu benn yoon uh, xaar ma yàlla mu di ko sant rek uh, di ko gërëm ci durant boobee nga xamante ni rek a na foofee rek ca TFM mu mel ne rek ay soppeem daal jamono ji rek xaw nañoo am rek tuuti méttin ginnaaw rek ci ay analyse yoo xamante ni rek dan na ko fësal ci rek ci émission politique yi nga xamante ni daan am foofee rek ca TFM mu mel ne rek téléspectateurs yi rek dinañ ko namm lool moom Barka ba daal moo da daal di xëy bind rek ci page Facebook di wane rek nee nañ ko xaarandi rek beneen yoon ci ay yeneen i ah, projet moom Barka Ba rek moo ko ah, daal di ah, fësal ca diwaanu rek TFM fa la ñuy daal di desandi ndax gis nañ rek kii di Fatou Lawbe ginnaaw rek ca émission guddi gi biñ ko ca invité rek daal di rek maire bi nga xamante ne bii rek am na ko foofee ca ëttu yëglekaay ba ndax nee na TFM ñoom ñoo ko supporté wul rek benn yoon ndaxte dafa yónnee rek ay vidéo clipam ci lu bëree te ñoom sax duñu ko teg te bu wootee di laajte dañ naan ko wala euh, techniciens yi bu leen woowee duñ ko wax euh, dara loo xamante ne rek dina mën a wundu ne moom daal ya tax teguñu euh, kilibam yëpp ba tax rek mu daal di ne jafe-jafe rek amul ginnaaw rek YouTube mi ngi fi TikTok ak Instagram kon nag amatul benn souci ngir mën a fësal rek ay vidéom ñu àddu ci leneen ñu gis ne rek mu di phénomène bu bees mu di ay allumettes yoo xamante ni bii rek démb ak tey ñu koy faral rek di partager ci réseaux sociaux yi ginnaaw rek ba ñu xamle ne rek ab almet boo xamante ne nii dañu koo liggéeyaale ak mystique boo ko taalee rek ki nga xamante ni rek moom nga bëgganteel boo ko taalee rek mu mel ne euh, seen diggante dafay gën a rek rattax ba heure boo ko taalee rek xelam day daal di euh, dem ci ñoom ba mu mel ne nag jamono ji rek challenge bi euh, bari na lool ba xa ñu ngi génne rek théâtre boo xamante ni rek daare a coci defoon nañ ko jëm ci sama allumette mu mel ne daal jamono ji coowul na lool rek ci réseaux sociaux yi ginnaaw bi nga xamante ni bii daal dafay dofloo ki nga xamante ni rek moom nga bëggantee la ci ginnaaw rek boo ko taalee mel ne rek jamono ji rek comme noonu ngeen ko gisee rek ci image yi Alimet daal mi ngi bëgg rek tas réew mi ñu wax rek ci benn kawteef boo xamante ni bii rek am na ci benn chauffeur allo Dakar boo xamante ni rek ay atam mi ngi toll ci ñaar fukki at ak ñeent copinam bi mu doon génnal ay atam toll si fukki at ak juróom-benn moom nag daf ko daal di war dem sëy ak beneen uh, góor ba tax rek chauffeur alo Dakar bi le daal di mer uh, ba futt ba tax rek mu daal di jéem rek uh, fayu ba ci noonee rek la daal di sàccee rek xale bu jigéen bi ba yóbbu ko rek ci village bu ñuy wax Kër Jooba nekkee nag ca Tiwaawoon ba nag ba mu see foofe ca noonee rek la ko daal rek violé daal di egg ci kawam ci guddi gi yëpp mu mel rek a fayu yooyu la ca daal di jublu woon ba ndaw si rek ba mu xëyee dañ ko daal di rek yóbbu ca l'hôpital mu daal di xamle rek ne kii daal dañ koo daal di fanaane rek violé ci noonu rek la ñu journal bi daal di xamale ne chauffeur bi rek def nañ ko en garde à vue ngir xaarani rek ba xam yoon lan lay daal di rek wax ci mille mbir pour fàttali rek ne chauffeuru taxi bi liñ koo jàppee rek moo di viol ak enlèvement ma nga rek ca parquet bu Thiès ñu addu ci beneen ñaawteef boo xamante ni bii rek ca diwaanu Touba la xewee benn xale rek bu am lu tollook ah, ñaar fukki at ak ñett moom rek lañu daal di jëm paaka rek mu daal di faatu ca diwaanu Alieu la xewee démb rek ci altine ji yam ñaar fukki fan ak ñeent bu sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay bi leen ki nga xamante ni bii rek moom la ñu ah, faat moom nag ab chauffeur la woon mu mel ne rek nee nañu moroomu chauffeur am moko daal di faat ginnaaw rek ba enquête ba rek duggee ca mbir ma waa ji nag ngi tudd euh, Modou Sow ki ko faat nag mi ngi tudd euh, Fallou loolu lañ ci daal di jàpp ni waaye nag ci fàttali Modou Sow dafa daal di rek ñàkk bakkanam ca saasa ginnaaw rek ba ñu ko euh, jamee xale la nag ay atam nga toll si ñaar fukki at ak ñett waaye nag gendarmerie bi ba mu ubbee rek enquête ba lam ca daal di le mooy ki nga xamante ni bii rek moo def mille mbir di Fallou dafa daal di rek daw bi mu defee bile acte ba mu defee nag mille mbir enquête ba nag ma ko diktalaat eh, ci suñu yeneen eh, jotaayu xibaar beneen ñawteef eh, ca diwaanu Louga benn taalibe moo daal di faat rek doomu sëriñam bile nga xamante ni rek bébé la moom la daal di faat dugal ko nag ci benn fosse septique taalibe bi nag ay atam mi ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom biñ ko laajee nag lu waral mu def mille mbir mu sukkandikoo rek ci l'observateur lam xamle ni mooy moom nag daf doon fayu ndax maître coranique bi daf ko jàppoon rek daan ko dóor door yu métti loole nag métti ko lool ba tax rek mu daal di jël doomam bi nga xamante ni bii rek nee na ah, gis na ne daf koo bëgg lool moo tax rek mu daal ci fayu daal jël ko dugal ko ci benn fosse septique mu mel ne rek mer mi nga xamante ni bii rek am na ko ginnaaw ci ay méttit yoo xamante ni maître ah, coranique am bi mi ngi ko koy def moo tax rek mu def ah, mille mbir lépp lu ci fasaa dina ko diktalaat ci suñu yeneen ni jotaayu xibaar dañu koy daal di jeexalee rek ak beneen motif boo xamante ni rek mi ngi wër di lëmbee réseaux sociaux yi mu di ngóor ginnaaw rek duudu bu série Adja gisoon nañ fi rek ab vidéo euh, lomotifam mu doon génne rek ay awram di def naka sudul noonu ki nga xamante ni rek moo di ngóor euh, bu série Adja moo ci daal di toftalu ginnaaw rek appel vidéo boo xamante ni rek seqoon na ko ak corom bi coro ba nag dafa daal rek dagg vidéo booba moom sax kenn mënul gis ah, kanamam ngóor rek daal di simmeeku rek ah, ba set di jël nag ay awraam da ca def lu ñaaw rek lool ci ah, gisin mu mel ne rek nekk na li ñuy gën a waxtaane jamono ji ci réseaux sociaux yi buñ sukkandikoo rek ci xibaar yi li ko waral rek buñ sukkandikoo ci xibaar yi moo di ngóor corom bi nga xamante ni rek moom lay bëgganteel daf ko jënduloo woon rek benn iPhone 12 Pro Max mu gis ne nag ngoor boobee ba tey defu ko moo waral rek mu def appel vidéo boobule daal di koy wili pande rek ci réseaux sociaux yi ñëpp daal di koy jotandoo mu mel ne rek ne ñàkk jox gim ko ñàkk rek mu def euh, li mu mel ni rek jamono ji daal Pathé Sène jaaxle na lool rek ci njabootam gi ginnaaw rek bi Doudou jàllee gis nañ ne rek Ndongo moo ci daal di jàll ñuy xaarandi rek ba xam dina ci wax comme ni mu waxee woon ci vidéo Doudou bi jàll li rek moo fi gënoon a fës amee internet yi dig daje doon ba ëllëg ak jàmm